du collectif des victimes de la SNHLM de Thiès. Je disais tantôt que c'est au nom de, de cette structure qu'on a convié la presse euh, pour une petite causerie. Pas pour répondre à des gens qui ne maîtrisent pas en réalité le problème que nous vivons, mais pour vous faire approximativement la situation actuelle. De quand on parlait tantôt de coopérative, même s'il y a coopérative, c'est des structures fictives qui ont été créées par des agents de la SNHLM pour nous faire avaler la couleuvre. Mais en réalité, il n'y a pas de coopérative. La coopérative doit servir d'interface entre l'adhérent, euh, son adhérent qui est le client de la SNHLM, et la SNHLM. Et nous, on n'a pas vraiment la corrélation qu'il y a entre euh, coopératives et les adhérents ou les clients. Donc ça, c'est de faux débats que nous allons réfuter et que nous ne pouvons pas répondre à ces gens euh, <clears throat> pour revenir directement à la situation que nous vivons aujourd'hui, sur 98 membres de la structure, que j'ai l'honneur de présider, parce que dès qu'on dise que je ne suis pas le président, mais si vous connaissez très bien comment on gère les organisations communautaires de base, je dis OCB, être président, ce n'est pas une fin en soi, mais je suis bel et bien le président de structure, de cette structure bien sûr. Et pourquoi L'absence du président entraîne automatiquement que le vice-président soit élu comme président. Je ne m'en fais pas euh, tellement de problème. Être un membre simple et être président, c'est la même chose pour moi. Euh, pour continuer, sur les 98 membres que nous avons et qui ont 102 parcelles, parce qu'il y a d'autres, il y des gens parcelles, comme Fatagay, ils n'ont réglé que le cadre 30 personnes. On a 18 personnes avec des occupations irrégulières. On a 20 cas qui ne sont pas encore réglés. On a personnes qui ont versé deux fois. Versé par les 98 membres, c'est 119 937 710 francs. Avec l'insistance d'un certain M. Matarba, mes amis, mes collègues, nos adhérents ont une fois de plus de reverser. Et cette somme s'élève à 36 861 000 francs, soit un total de 156 798 710 francs. C'est ça l'argent que la SNHLM nous doit. C'est cet argent que la SNHLM a arraché à de pauvres citoyens, à des gorgorous, à des femmes de ménage, à des vendeurs de poissons, à des maçons, à des mécaniciens et à de simples enseignants dont on connaît vraiment euh, <laughs> le pouvoir d'achat. Donc c'est 156 798 700 qui a été arnaqué. Et on dit non. On dit non, trop c'est trop. Nous exigeons et réclamons que toutes nos parcelles soient au total 102 soit distribué à les ayants droit. On exige le remboursement des sommes indûment encaissées par la SNHLM, c'est-à-dire les 36 861 000. Nous réclamons des dommages et intérêts à la hauteur de l'injustice qui nous a été causée par la SNHLM. On demande aussi le cutus pour tous les attributaires. réclamons des infrastructures de base écoles, CM, postes de santé, espaces verts, mosquées, chapelles, terrains de jeu et un assainissement des sites des unités 4 et 5. Donc, euh, pour aussi répondre à monsieur le chef d'agence de la CNCA qui a dit que ceux qui n'ont pas reçu leur parcelle, c'est des gens qui n'ont pas de preuves. Je dis que ce pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que quatre personnes. Quatre personnes, je dis bien, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas de preuves, mais ces preuves ont été déchirées, déchirées par un bandit de grand chemin, en l'occurrence M. Matarba. En déchirant ces preuves, il a cru pouvoir arnaquer ces gens-là pour qu'ils ne disposent plus de papier pour faire valoir leurs droits. Ces quatre personnes euh, j'ai ici les noms, ce n'est même pas la peine de, de les citer. L'autre avait parlé de Elage Touré, c'est vrai, il n'a pas euh, les papiers parce que c'est des papiers qui ont été euh, déchirés par l'ex-chef d'agence. Il y a Amadou Nguer, il y a Ousmane Niang et tant d'autres. et une autre personne, ça fait 4 personnes sur les 38 qui n'ont pas encore reçu de parcelle. Donc dire que euh, ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de, de justificatif, je que c'est faux et ça c'est inadmissible. Donc c'est-à-dire nous avons un, nous avons un mémorandum que vous pouvez consulter et que n'importe qui peut consulter. Dans ce mémorandum, il a été noté toutes les activités que nous avons menées depuis 2018 que, et que ce mémorandum reflète quand même euh, euh, une réalité que personne ne peut dire. C'est-à-dire, nous avons, nous avons essayé de rencontrer tout, toutes les autorités administratives de la région de Thiès sans succès. Finalement, on a été reçu par le nouveau gouverneur qui avait appelé Diop l'avait demandé de tout faire pour régler ce problème. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. D'autre part, le DG de le 15 février 2022. Au sortir de cette réunion, il sorti un procès verbal où il avait noté toutes les activités à mener pour résoudre n'a pas été fait. On est dans un pays la SNHLM est le numéro 1 de l'arnaque. La SNHLM, je dis bien, est le numéro 1 de l'arnaque. Parce que ce PV qui a été élaboré par les services compétents de la SNHLM n'a jamais été respecté. C'est vrai, euh, on n'a pas peut-être privilégié la voie judiciaire, mais presque tout le monde a porté plainte contre la SNHLM. Mais depuis 2018, mais ça n'a jamais été Chaque fois qu'on dit que le tel du mois, il y a un rapport. On a un avocat qui s'acharne à quand même à vouloir nous mettre euh, vraiment qu'on puisse juger l'affaire, mais ça tarde, hein, depuis 2018, ils n'ont Peut-être nous, on pourrait peut-être le Président la République, parce que c'est le seul recours qui nous, euh, qui nous c'est le seul recours qui nous reste. Dû au départ, il y avait des vendeurs de poissons, des vendeurs de cachères, des vendeurs de mangue, tu vois, euh, des femmes de ménage qui ont tout mis, qui ont mis toutes leurs économies pour avoir une parcelle. Aujourd'hui, bien des gens sont décédés. D'autres ont perdu tout espoir. Parce qu'après 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas facile. la majorité des adhérents euh, du collectif sont à la retraite et ne disposent plus de moyens. Même si on leur avait donné leur passe, ce sera extrêmement difficile de construire. Donc, euh, en tout cas, euh, on vit vraiment le calvaire. Le calvaire. C'est extrêmement difficile. Et le dernier recours, c'est le chef de l'État le dernier recours, c'est de demander à monsieur le président de la République, son excellence Macky Sall, de nous aider à régler ce problème. Le Gorongom, des responsables, cellule de communication collective des victimes de la SNHLM. de Thiès waaw de Thiès. Euh, ñu amoon lu ñu metti lool ci SNHLM bu Thiès parce que jàpp naa ni képp ku bëgg lu wóor ba dem HLM pour bëgg kër ñoom jàpp naa ni loolu war na war nañ koo fonk mais ñu dem fa ñu fayloo ñu fay loo ñu parcelle defal ñu ay cotisation ñu cotiser ba pare ñu xamal ni xaalis bi ngeen doon cotiser yëpp sàcc nañ ko ñu ni ñu léegi da ngeen di cotiser waat deuxième fois ñu cotiser waat ba mat ñu ni ñu foog ñu xaar ba keroog ñuy am parcelle yu ñu jox xam nga ni loolu du dëgg du yoon. du dëgg du yoon dafa am loo xamante ni dafa war a jeex Sénégal golo di bay baabu di dundee dafa war a jeex Sénégal. waaw may wax nag waa Sénégal di wax waa àdduna ñun li ñu dal dalewuñu gàmbi dalewuñu Nigéria mu ngi ñu dalee suñu dëkk Sénégal te société état étatique moo ñu ko teg bu ñu naan société nationale di SN HLM directeur SN HLM yi ak chef d'agence su SN HLM yi problème yi ñu nekkee ñoom ñoo ñu ko teg kon nañ xoolaat seen bopp. parce que mënuñoo dem ci société état nekk ay góorgóorlu di taqale di jiwoo ko daanu ñu fay parcelle ba pare ñu naan xaalis dañ ko sàcc fayaat leen ñu fayaat ñu ni amuñu amuñu terrain loolu dëgg du yoon waaw nan lijjanti lii directeur général bi fi nekk di du Diagne Sy Mbengue dem nañ ci moom le euh, le 25 février le 25 février 2020 dem nañ ci moom ñu toog mu toog waa ASLEM toog mu xameel nañu képp koo xamante ni am nga dossier HLM dinaa ko lijjanti depuis boobu ba léegi ba ko Mamadou Diagne si mbéng ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi fay seen CA yore seen i preuve yaakaar naa gis ngeen ko luy niroog parcelle jotuñu ko am na ci ñoo xamante ni ñu ngi fay CBAO ñooy seen i rosi luy niroog parcelle jotuñu ko am na ci ñoo xamante ni ay kayit lañ leen jox jox leen ci toolu jàmbur loolu dëgg di yoon man mii di wax ak yéen Essane HLM def nañ ma victime ñaari yoon njëkk nañ maa def victime ñu defaan ma victime muy deux fois ma ne lii mënul nekk ma xeex ak ñoom reyante ak ñoom ñoom ñu ragal ma jàpp ni dama leen yàqal ñu sepp ma ci mbooloo mi jox ma sama parcelle tëdd ci sama alal loolu du dëgg di yoon lii lii daf fee war a jug waaw di ñaan nag président Macky sàll mu mu mu dimbali ñu ñëw lijjanti lii. parce que ñoo jorogul seen terrain. waaw waaw ñi des ñëpp am nañu am na ci ñoo xam tamit ay kayit lañ leen jox. am na ñoo xam ne ay kayit lañ leen jox ci toolu jàmbur lañ leen jox te loolu. du du du dëgg du yoon waaw ñun nag li ñuy ñaan mooy Mamadou Diagne si Mbengue xam naa ne nag mu ngi def lu nekk mu ngi jéem lu nekk mais dañoo gis ni dafa tële ñun li ñuy ñaan mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue man maa la koy ñaan ak mbooloo mi pour nga démissionner Star HLM ndax ñu mën am keneen koo xam ni euh, mu réglé ñu affaire parce que ñun sonn nañ waaw ñun daal en tout li nga xam ne daal ñu ngi koy lancé appel bu ñu sañoon Diagne si Mbengue na fi jóge parce que ñun ku ku mën a suñu mbir lañ soxla Star HLM parce que Star HLM ñu société état la et puis société bi suñuy suñuy maam ak suñuy baay mën naa ne ci lañ daan am ay am ay kër kon tey bu ñu bàyyi ba heure bii nit ñi di fi nekk di am ay problème te jàpp naa ne ku mënta régler téeméeri loo xam ne téeméeri nit mënoo ko régler jàpp naa ne est-ce que mën ngaa régler problème essentiel kon daal ñun daal li ñuy wax daal mooy Mamadou Diagne Sy Mbengue ñu ngi lay ñaan nga démissionné waaw bu ko defee keneen koo xam ne mën naa régler problème bi mu mu. ah man de li ma jàpp ni moo ko gàllankoor ñi ñu ko séqal ñoo amul benn yërmande. parce que ñi ñu ko seqal bu ñu amoon yërmande yaakaar naa ñun ñun du ay milliards lañ leen di topp ñun man a ay millions la ay somb ndaw téeméeri nit kon jàpp naa ni ñoom bu ñu amoon yërmande tuuti lijjanti nañ lii. mais autorité Thiès yi dem nañ ci ñëpp dem nañ ci ñëpp wax nañ leen mais fi mu doon amuñu benn solution gouverneur lañ mujjee dem mais ba léegi solution am amuñu ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi toog di xaar waaw ñu bëggoon daal ñu ñu dimbali ñu bu baax a baax di interpeller président Macky Sall man dama jàpp ni. président Macky Sall yëgul lii lii bis bu ko président Macky Sall yëgee gëm naa ni dinañ dinañ dinañ ko la daal. suñ plan d'action mooy mooy dañoo fas yéene xeex ak ñoom euh, SN HLM fépp foo xamante ni wootee nañ fa ba ba ba Tamba bu ñu fa wootee bu ñu geesoo dinañu gis ñu yore suñu banderole suñu pancarte xamal leen ni leen dangeen ngeen ñoo yore suñu terrain mënoo leen ñu kaa jox. waa ñun wut nañ avocat ñun wut nañ avocat ba avocat bi mu ngi ci loolu ñu ngi toog di mais depuis boobu ba léegi daal mooy loolu daal. avocat bi 2018. 2018 ba léegi daal dara jotaguñ ko dara jotuñ ko. waaw dem nañ fa nag mu bindal ñu benn PV dem nañ ba bu mujj bi dem nañ ñu bindal ñu benn PV euh, le 15 février 2022 mu ni dina régler problème bi te du yàgg di Mamadou Diagne Sy Mbengue ni dina régler problème bi du yàgg di ngeen jot seeni terrain waaw ba jamono jooju directeur SNH bi ñëpp a ngi toog Moustapha Diop fekk ca mbooloo ma la nekk directeur commercial ma a Diop fa la toog Ibrahima Diop ñoom ñëpp fa lañ toog mu xamal ñu nu dina lijjanti problème bi ba defal ñu PV mais ñun lii suñu problème ñun dafa am loolu mënuñu ko nangu ñun mënuñoo à chaque fois heure bu ñu toogee ak Mamadou Diagne ñu wax du ko respecté en même temps li ñu gën a métti bërki démb mu génn fii ci benn benn benn benn télé benn rajo di ñu xamal ni ñun ñi mbooleem koo xam ne am na preuve SN HLM woo na la ba jox la sa parcelle ñiy yuuxu mooy ñi nga xam ne am ñu te loolu loolu amul parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci mbooloo bi fay nañ seen seen seer luy niroog terrain gis ñu ko am na ñoo xam ne CBAO lañ fay luy niroog terrain gis ñu ko am na ñoo xam deux fois lañ fay même ñi ñu jot a jox kayit sax ci ay toolu jàmbur lañ leen jox ak ay miiru jàmbur loolu mooy lan loolu mooy lan te SN HLM képp ku ko wóolu ba dem fa danga bëgg lu leer man maa ngi tudd Cheikh Tidiane Diaye attributaire parcelle 75 euh, 120 man prototype laa rek ci victime u HLM yi euh, dama bëgg tontu rek directeur SNHLM bi ne képp ku indi début de preuve jox nañ la parcelle man j'ai une preuve irréfutable sama caution maanaam 600 000 francs maa ngi ko versé auprès de la CBAO CBAO mooy banque bi nga xam ni moom la SNHLM agréé sama mensualité yi maa ko versé ci direction HLM donc man sur ce plan là amoo benn problème xaalis donc sama problème mooy depuis 2010. directeur yi fi jaar yëpp mu nekk caam euh, mu nekk Mataba mu nekk Diop mi fi nekk léegi saa bu ma fa demee dañ ma naan ni yow da impact mineur la dafa am kenn ko fa def murette. moo tax yow man man dama foog ni euh, SNHLM structure état la état moom moom suuf yëpp état quatre heures boo toogee ci yëfam bu ko dexee mu détruire ko sàkkantumaak benn murette bu fekkoon ni loolu depuis 13 ans. chaque jour chaque mois munoon lañ dindi benn mur benn benn benn benn brique jeexoon na lu tax ñoom ñëpp loolu lañ lay wax ça c'est inacceptable man je crois que gis nga HLM seen problème mooy manque de rigueur li leen dal mooy manque de rigueur moo tax directeur kenn Cheikh Thiam toog fii pendant dix ans di def lu leen neex kenn waxu ko daa beneen manque de rigueur mooy yow sa suuf nit di di di di fa di fa tabax wala di fa def daal nga toog di ko seetaan c'est inacceptable ñun daal euh, lenn la ñuy wax euh, directeur général Diagne Diagne Sy Mbengue dañ lay ñaan ci njekk ndegam ñaan ci njekk moo xew ci dëkk bi dañ lay ñaan ci njekk nga jox ñu suñu suñu su suñuy parcelle di ko di lancer message bi président de la République Macky Sall di ko ñaan audience mu régler suñu problème loolu laa amoon lu may wax maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. ay Aïssatou Ndiaye nekk euh, victime ci par euh, ci FNHLM bu Thiès depuis deux mille cinq laa fa ubbi woon compte ñëwuma sa pour tontu mais dama ñëw pour leeral parce que DG bu génnee naan ñiy wax ñi demoon ndakaar ba ñu téye leen amuñu preuve ñun am nañu suñuy preuve mi ngi nii. permis d'occuper la dañ ma jox en due et uniforme sama nikaat mu ngi nii. sama contrat mi ngi ne avec la SN euh, HLM depuis 2018 mënuma gis terrain bi fu mu nekk fu ma dem ñu ne ma teeru toolu jàmbur la te ñun de ay góor góor lu ñu ay néew di doole di daw yor suñu njaboot dañoo defoon bu ñu dawee ci HLM di société étatique dinañu yiir ñu yërëm en tant que jigéen en tant que mère de famille ñoo ngi woo le président de la république mu taxaw ci lii ndax duñ ko bàyyi suñu bakkan bii lañ ci teg ndax sàccuñu fenuñu suñu alal la ñoo ko ñàkk par dërëm ak ñaar dërëm ba mu egsi fii waaye ngir yàlla nan ñu jox suñu terrain ñun lu ñu jotee ñoom yaakaar leen bëgg lu fii ñu fi toog ñëpp a ndax juba tax ñu ñëw ba foofu juba tax ñu ñëw e, e, e, FNHLM ñu jox ñu ay kayit ñu naa amuñu preuve preuve yaa ngi nii ana terrain ba depuis vingt ans nga ciy topp fu ne dëkk naa fa fu ne lu fu ne luyee naa fa maa ngi nii aw ma fu ma dëkk aw ma terrain lii laa yaakaar du ma ko ba nag ma dee sama njaboot jël ko allah kulli aane ñoo ngi woo la président de la république lii na ko tax loo xam ne matul cent personnes ban dëkk lañu ñu ne fu ñu jëm ñun amuñu fu ñu daw amuñu fu ñu jëm fii la ñu am ay góorgóorlu nañu monsieur le président de la république ñoo ngi lay woo suñu soxla bii yàlla nañ ko fajal yow rek lañ ci yaakaar gi ginnaaw yàlla ak yonent bi ministre bi nag xaw ma DG bi na fi jóge ndax il est incompétent ku mënta faj li doo mën a faj leneen ku mënul faj lii cent personnes doo mën a faj leneen ñii dee nañu ñii retraité nañu lii feebar nañu ñi mënatuñu ñëw ñii sax dañoo baax kenn xamatul fu ñu nekk. fu ne bind nañ leen président mi ngi nii woote nañ fu ne jooy nañ fu ne dem nañ fu ne bu ci mujj mooy seen journée porte ouverte yi ji ñu dem Dakar paa yi dem sax dañ leen a téye yóbbu leen police point 1 ndax lan lu ñu def sànniwuñu tojuñu xeeruñu laaj laaj sa droit ñun ay magum jëm lañu bu ñu amuloon preuve daañu di wax demee daa ñu dégg mais nañu jox suñu alal dañoo góorgóorlu ba am fa plus de vingt ans ñun bañ fay dugg ay ndaw lañu tey ay mag lañu suñu bopp yi bejjaaw nañu est-ce que buñ ñu ko joxee sax daañu ko tabax yal nañ ko fekke yàlla nañ ko tal yàlla nañ ko muur loo wante ñoo ngi woo président Macky Sall mu jàpp nañ ci lii metti na fa fu metti di yam foo ko natt ëpp na ko ñu wax ak ñu waxul kaa yi bari na ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm